يننت بصلى الله عليه وآله وسلم موكو دينك بندي في خيتم جلتي لا يننت ببايي كاك غوغو تول نونو نا خمني دينكاني بو لا يو جلت بيغا وركو جلت muy les conseils du prophète yonent bi conseil la yobante la ki la indil yobante bi moy ibni abbas رضي الله عنه وارضاه نينا na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waar na نيكو اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه أحمد من يننت في صلى الله عليه وسلم دفا دون وار بن واي نكو اي سما مبوك ماغي لي دينك préparel juróomi mbir nga waajal ko ndax juróomi mbir a ngi ñëwaat jëlal juróomi mbir yi nga jëfee ko balaa yeneen juróomi mbir yi leen di folli di ñëw mbir bu nekk ci juróom yi am na bu koy folli kon nag góorgóorlul ba denc juróom ngir xaare ko juróomi mbir ndaw dénkaan lu rëy dénkaane boo xam ni dana yee ku sàggan ku doon nelaw dana la yee dana jubal ku gëlëm dana gindi ku réer ndénkaane lii dana yee mandikat bi xëqoon waaye ndénkaane bi dana la génn ci man di teg àdduna xanaa xamoo ni ndénkaane li muy jëriñ ngir nit mën a moytu la silmaxa bu doon dox ci yoon bu am ay pax soo dajeek moom nga bokk ci ñi baax da nga ko naan doxel ndeyjoor moytul càmmoñ lu tax ngir mu bañ a fakkastalu di daanu ci pax yooyee kon nag silmaxa bi ñuy dénk moom it warul nekk ku dëgër bopp waaye daa war a jël li ñu ko dénk lan la yonent bi wax sallallahu alayhi wa nee na dencal juróomi mbir waajalal juróomi mbir balaa juróomi mbir di ñëw ñu ne ko yonent bi yi ñuy waajal ban ak ban la mu ne shababak qabla haramik sak ndaw na nga ko garde de sak jeunesse na nga ko garde ndax ak jeunesse yàggut léegi nga jóge ci ndaw li ñëw ci paa kon nag jamono bi nga nekkee ndaw sàmmal sa ndaw ndax kat ak ndaw ndaala boo xam ni bu tojee yàqu kon sàmmal sa jeunesse nekk ndaw warul tax nga libéré sa bakkan nekk ndaw warul tax nga màmm war fasu àdduna nekk ndaw warul tax nga jiital sa bakkan waaye nekk ndaw warul tax loo gis foog ni yaay boroom ndaw day sàmm ak ndawam muytul mooy yàlla moytul jaar yoon bu yàlla tere moytul yoonu iblis ndax dalay fëkk dalay yàqal dalay xañ tuyaaba kon yow ndaw lii yëgal ni seytaane dafa daw di la ut adduna dafa daw di la ut musique dafa daw di la ut jigéen ñi ñëw nañ di la ut waaye xamal ni ndaw nga bul fooyee sag jeunesse bul fooyee sag ndaw képp ku fowee ndawam magam dana ko réer kon ndaw lu jara sàmm la ndaw mi ngi tàmbalee ci quinze ans jëm quarante ans diggante quinze ans ak quarante ans 25 ans là 25 ans de jeunesse loolu kenn du ko fooy boo ci tambalé nek ci football munoo def ci football bi 20 ans déedéet ndax légui si dem bu dee sport de combat nga doon def bo 40 ans da ngay tambalé de doole. waaye waxtu woowu it nag sa boroom ci la la soxla ngal la waay bul jël sag ndaw dénk ko musique bul jël saw ndaw dénk ko fecc dénk ko fox bul jël sa bakkan bi topp lu ko neex dansin bu nekk nga taxaw fa di danse bërëb bu nekk nga dem fa di fo bépp bërëbu mooyukaay nga taxaw fa lépp lu yàlla tere nga ni danaa ko def népp lu xaram nga pare pour def ko ragaloo ak góor jigéen ragaloo njaaloo ragaloo naan sàngara tiitoo déglu musique lu ñu wax rek nga ni man ndaw laa léegi incha ma tàmbalee ñëw jaamu yàlla buñ la nee jàkka ja nga ni bërëbu paay yi la suñ nee alquran nga ni affaire ñu tardé ñi la yow daal sa adduna mooy showbiz sa adduna mooy cëppi cëppi xanaa xamoo ni ak ndaw mag mooy noonam xoola ñi am quarante ans jëm soixante dix ans bi ñuy nekk jeune bu ñu jógee compet la ñuy def bu ñu tëbee daw ku leen dàq doo leen jot ku ñu dàq danañ la jot ku joteeg ñoom ñu saaga la ku wax seen deret tàng ñu commencé futteeku xoola xale bu góor su joteeg moroomam moroomam saaga ko ngay tàmbalee yëg nii ndeke ndaw lu ñu war a sàmm la day daldi di dof commencé summi yéreem di jaay doole foog ni moom la moom la yonent bi nee na sàmmal loolu balaa màgget a ñëw màgget bu ñëwee <laughs> li nga mënoon dootoo ko mun de sa doom sax su dawee mënatoo koo dàq démb bi nga nekkee ndaw sa doom bu déconné nga toj nopp bi su dawee nga daw ñaari jéego jàpp ko tey dugg nga soixante ans sa doom bu déconné nga xàcc mu daw loo koy wax <laughs> doo ma rëcc dinaa la xaar xam nga lu tax mënoo koo dàq jot ko moo tax nga ne ko naa la xaar dootul du ma du ma ci dawante dinaa la xaar doo rëcc xoolal bi nga nekkee ndaw sa kawar ñuul lu ne nga ne di ko def costume pantalon braye fiso lëng jigéen ñi ngeros pacanga fecc dàqante tey anamu tey ci caaya ngay mujj salopet booy dox yaa ngi gàddu yat ñaari baat nga ne boo doxee tuuti sonn soo tëddee biddanti mënatoo dara kon sàmmal loolu mooy sababak qabla haramik ak jeunesse dañu koy sàmm bu la xale jigéen yi nax bu la fëkkkat bi nax borom bi subhanahu wa taala ne fala taxurrannakum alxayatu dunya wala yaxurrannakum billahi algarur ay waay bu leen adduna nax bu leen seytaane nax bis dana ñëw nga réccu la nga doon def kon ndaw dañu koy sàmm ñaareel bi yonent bi ne ko wa sixatak qabla mawti su wér gi la yàlla may jaamu ci yàlla wa sixataka qabla suqumik su wér gi la yàlla may jaamu ci yàlla balaa ngaa feebar jamono bi nga wéree del dem jàkka del julli del qiyamul layl wir nga kon so wir gi lebal ci yàlla lu rafet borom bi ne in tuqridu allah qardan hasana fayudaa'ifuhu lakum su ngeen lebalee yàlla bor bu rafet yàlla fulandil leen ko kon wér gi nga am lebal ko yàlla del yeewu fajar di dem jàkka del julli del jaamu yàlla jamono bi nga wéree soo jullee teg ci ay rakka naafilaa ko jamono bi nga wéree soo wooree teg ci ay bés naafilaa ko bisa ngi ñëw nga feebar demal hôpital ñaata xale yu góor ñoo fa tëdd ñii dañoo dagg seen tànk ñii dañu leen opeere ñii ñu ngi leen di defal dialyse ñee dañoo am feebaru cancer ñii amee feebaru prostate ñii accident ba seeni cër mënatul yëngu te ay ndaw lañu comme yow même âge wér waaye tey fan lañu tëdd ñu ngi tëdd ci lalu feebar alal ba ñu amoon tey neexatut compte ya ñu dencoon tey neexatut tey benn bëgg-bëgg la am mooy wér gi yaram démb dañuy wax di reetaan di wax di xàqataay tey onk la ñuy waxtaane bu ñuy salaamaaleykum Mouhamed na nga def bu nit ñi waxtaanee lu reelu doo mën a ree ndax ree xol bu wér moo koy def mais ki wér di talul ree yow mi ñëw toog ci wetam sax dootoo sawar ndax ki nga xamoon démb ci wér ci yëngu tey mi ngi nii mënatul dara démb mbër la woon ku mu dóor nga daanu ku mu jàkkaarlool yenu la tey mbër bi ñu naan feebar moo ko yenu tëral ko ci lalu hôpital mu nekk kat at bi mënatul jóg arbitre ne ko daanu nga ki ko daaneel mi ngi ci kawam te wàccagul loolu mooy wàccal ku daan wàcc mi ngi ci lalam waaye mënul lekk dañ ko koy defaral naan dañu koy defaral la neexoon naqari na adduna dara neexatu ko journal yi raw na ko xabaar yi rëcc na ko jabaram sax ndeysaan su toogee ci wetam dara dootu ko saf kon sa ndaw gi ak sa wér gi jaamu ci yàlla balaa wér di ñëw bi ngay wér mun nga dem jàkk mun ngaa julli tey mënatoo nooy jullee da nga waroon julli saxaw defoo ko tey da ngaa feebar da tëdd da ngay toog jamono bi nga wéree jaamu ci yàlla moo tax jamono bi ngay wér di julli di taxaw soo feebaree ba munoo taxaw nga toog dañu lay fay fayu ku taxawoon ndax la nga doon taxaw la la yàlla di remplacer loolu moo tax wa sixatak qabla suqmik ñetteel bi yonent bi ne ko wa xinaaka qabla faqrik am am bi nga am hmm. jaamu ci yàlla ñàkk ngi ñëw de milliards yi million yi foo ko dépensé soraanoo ñan nga ko jox grand théâtre waykat bu yuuku nga yëkkati jox ko ku ne ñaalo gañ ko nga làmb poos battre su fokat bi fowee nga battre ay dix mille courant jàkk ji coupé jaralu la nga mun koo fay daray diine safu la daray yàlla neexu la yow fi nga bëgg mooy fi ñu lay taggee naan la élage naan la petit papa yow yaay waaja yow yaa ko yor loo doxoñ mu dog loo bëgg mu am nga def sa boppu mbër ni jàpp ni yow yaay le milliardaire yow la ñuy taggee borom am am bi géwél yi di la nax kenn ku nekk naan la ku tabe nga kenn ku nekk naan la yaay waaja fekk yu tabewoo nekkoo waaja waaja mooy ki waajal yowmal qiyam alal bii danañ la ko laaj de foo ko jëlee danañ la ko laaj foo ko jëmee danañ la ko laaj kon wa xinaaka qabla faqrik bis dana ñëw nga ñàkk lu milliards yi bëri bëri boo tëddee lalu hôpital da ngaa ñàkk ndax yaa ngee ki milliard waaye tey ruy ngay naan yaa ngee ki milliard tey dañu lay perfuser da nga daan dem Londres dem Italie dem Belgique adduna bi fu nekk nga dem siin Taïwan Chine populaire tey jii yaa ngi tëdd ci lalu hôpital benn nen mënoo koo lekk mu jeex benn kaasu meew mënoo koo jeexal sa làmmiñ dem na ba neexatut yëgatoo dara luy saf lan ngay nekkee onku tey alal ji nekkatul sa alal mi ngi xaar sa njaboot kon waxinaaka jamono bi nga amee defal ci yoonu yàlla qabla faqrika balaa ngay ñàkk mu ne wa faraaxaka qabla sugulik bi nga amee temps toppatoo ko jaamu ci yàlla balaa ngaa ñàkk temps temps yombul li gën a cher ci jullit mooy temps mooy liberté jamono boobu boo dawee waaxu boo déggee nodd demal julli sooy fo soo déggee nodd demal julli loo munti nekk boole ci jaamu yàlla ndax bis dina ñëw nga bëgg ko mu të kon wa faraaxak qabla sugulik bis dana ñëw hmm. nga ni nañ ma yóbbu jàkka ja te kenn dootu la yóbbu bis dana ñëw alquran rek ngay bëgg a déglu bis dana ñëw waaraate rek ngay bëgg a déglu démb bu ñuy waaraate da ngay bañ da nga naan yaay waaja waaye tey yaa ngi nii jaaxle yonent bi ne ko juba beneen bi ci topp mooy wa xayaatak sa wér gii góorgóorlu ci qabla mawtik balaa waa jooju ñuy wax dee di ñëw kon taxawal ci jaamu yàlla dee ngi ñëw wér gi dund bi dañuy dund pour jaamu yàlla wa mal xayaatu dunya illa mataul xurur borom bi nee na àdduna poñatam naxukaay la wa mal xayaatu dunya illa laibun wa lahu adduna fawukaay la ak mboosóorukaay ak caaxaanukaay kon góorgóorlul wallahi boo ko sàgganee bi sa ngi ñëw mu am waay ju fëgg ñu ne ko noo tudd mu ne anal mawt man maay dee dee day jël mag day jël ndaw mu jug jamono ndaw ñi ñooy ëpp dee mag ñi de égal mooy màgget ñi bëreetuñu kon ndaw ñi ñooy dee kon ndénkaane lu rëy lii yonent bi dénk xeet wi xeet wi nañu jël ndénkaan yooyu jàngataat ko seet seetluwaat ko ndax juróomi mbir yi dara gënu ko am sol jël ko nga def ko durratul bayda teg ko sa wet bind ko sa buntu néeg soo yeewoo jàkkaarloog moom nga yeewuwaat yal na yàlla aar ñu aar leen yal na yàlla nangul ñu nangul leen yal na yàlla teel ñu suñu ndaw yal na yàlla boole ñu ci innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnaahum huda